والصدقاء وتمسك بالله تبارك وتعالى وتذكر تاريخ مجيد من, من هذا التاريخ تسلسل على الجنة الشباب والرجال والشابات كلهم بمحبة الله تبارك وتعالى يكون بمحبة الشيخ إبراهيم radiyallahu taala anhu wa muhabba fi tanfidi fiina fi gayrina li anna kulla taalimihi laysat illa nafan lilbashariyati wa nafan lilmuslimina xusuusan fa hadihi taalimul allati أخذت من كتاب الله تبارك وتعالى وأخذت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فقط التي تستطيع أن أن تحوي مشاكل هذه الأمة بتحاليل الواسعة التي يمكن لكل إنسان مسلم أن يجد نفسه أنه بلا مشكل لأنه مسلم لله تبارك وتعالى اجتمعنا هنا أولا لإحياء يوم يوم الجمعة وثانيا لتذكر غال علينا غال علينا في قلوبنا غال علينا في نفوسنا غال علينا في حياتنا غال علينا في ديننا غال علينا في معارفنا وفي علومنا هذا وهو الشيخ ابراهيم رضي الله عنه وتذكره تذكر للعلم تذكره تذكر للجهاد في سبيل الله وتذكره تذكر لنشأة لإنشاء شباب المستقبل وتذكره تذكر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها في حاجة إلى بعضها البعض بدليل أنه في حياته سافر إلى كل مناطق الإسلامية في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا جريا وإيمانا وبكتاب الله تبارك وتعالى فرضا على المؤمن أن يكون أخا لأخيه المؤمن ظاهرا وباطنا وأن يكونوا أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فلإعادة الأمة إلى هذا الأسلوب الرباني الذي تنخلق منه الأمة قوية متينة كان السعي الشفاء في حياتي دائما إلى موريتانيا إلى نيجيريا إلى إلى كل مكان إلى تشين إلى كل مكان لتتوحد كلمة الأمة وكان له أمل في أن ذلك يتحقق له في حياته حتى قال في بعض شعره أنا لا, لا حتى لا أرى في هذا العصر كفرا أو محاديا معاديا للأمة ولكن شاء الله ما شاء وشاء الله ما شاء أيضا فلا يكون إلا ما أراد الله ولا يكون إلا الذي قدر الله لهذه الأمة أنه سيعيشها في هذه الحياة الدنيا ابتلاء من الله تبارك وتعالى على قوة هذه الأمة في التحمل وعلى قوة هذه الأمة في مواصلة رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم risalatul insaniyati arrafia risalatu al insani almutahadir risalatu alladi yuridu an yabniya mustaqbalan daiman mutajadidan bichababi hada almustaqbal ilman wa nuuran wa istislaaman lillahi tabaraka wa taala wa diinan wa taxayudan bima amara allahu wa taxayuda bihi wa hada la yakunu illa daiman أن يكون تكون هذه الأمة متيقظا بمستقبل شبابها وتعد له علوما يوافق عصورهم حتى يشغلهم ذلك عما للغير عما للغير عما يكون عند الغير فإذا فبأنفسنا نستطيع أن نبني أنفسنا وبأنفسنا وإذا بنينا أنفسنا بغيرنا فنكون دائما للغير ولا نكون لأنفسنا ونحن بحمد الله تبارك وتعالى كمسلمين أغلى من كل شيء في الوجود لأنه من ما مما قطع الله به لهذه الأمة إن هذه أمتكم أمة واحدة كنتم خير أمة أخرجت للناس كل هذه دائما يجب أن يكون دائما متجددا في الأمة متوقدا حتى تستطيع هذه الأمة وشباب هذه الأمة أن يكونوا دائما في المقام الأقدم في المقام العالي في المقام المقدم فأمة محمد أقوى أقوى أمة من أمم الأرض لأن كل أمم الأرض تحاول محو هذه الأمة بكل ما يملكون من قوة وبكل ما يملكون من علم ومن ثقافة ومن تكنولوجيا يريدون استعمالها ضد هذه الأمة حتى تمحى ولكن سيفنون هم وستبقى لأن الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره وفي ويابى الله إلا أن يتم نوره ويابى الله إلا ها ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هذا ضمان من الله تبارك وتعالى على أن هذه الأمة هي خير أم خير أمة من الأرض في الماضي وخير أمة من الأرض في هذا الأيام مع ضعفهم وفقرهم وعدم قوتهم ومع هذا فهم فهم فقط فهذه الأمة فقط هي التي ترعب أوروبا هي التي تخيف أوروبا حتى هذا المجلس الذي نعقده نحن بلا سلاح إذا وجدوا سوف يدرسون وسوف يقلبون لماذا يجتمع هؤلاء الناس ماذا يريدون ماذا يدبرون كيف يريدون خوفا منهم خوفا منهم لأنهم بهم سيقلب الله أمرهم سيقلب الله أمرهم وبهم سيؤيد الله هذه الأمة وبهم أيضا ستكون هذه الأمة كما كانت في زمن الأيام الباهرة ستعود إلى الأمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ستبدأ بدأ غريبا وستعود كما بدأ غريبا والطوبى للغرباء ويقول أن هذه الأمة ستعود ستكون له من السلطة والقوة قبل نهاية الدنيا ما لم تكن تحلم بها وكل هذه سوف سوف سوف يتأكد لنا لأننا جميعا متعلقون بالمستقبل نحن ننتظر شيئا ما هو ننتظر قوة الإسلام ننتظر انتصار الإسلام على كل أعدائه ننتصر أن تتفوق أمة الإسلام ظاهرا وباطنا كما تفوقت هذه الأمم تفوقا مزيفا ليست حقيقية إنما تفوق الأمة هي التي تكون تفوقا منبنيا على العقيدة التوحيدية وعلى أن هذا التوحيد يأمرنا أن نشتغل في كل ميادين الحياة نتوحد ونفرق bon loolu moo ñu moo ñu moo ñu dajale ci mbooloo ci bésu tey bii bés bu kawe ci ñun bés boo xam ne lépp loo xam ne yiw la ak mbaax la ak lu yëkkati doomu aadama dëgg-dëgg ku ne xam ne ne dégg nañ ko fii gis nañ ko fii ndax awwal cheyan mooy daje nañ ci zikrullahi tabaraka wa daje nañ pour tudd yàlla te yonent nee na tudd yàlla mooy sinaamul amri sinaam mooy ñu koy waxee ci ah ah colonne vertébrale bu giléem noonu mu noonu mu ne zikrullahi ci lislaam mooy colonne vertébrale bi nga xam ne foofu la yëpp a am su ko defee bu fekkee ne loolu mooy tudd yàlla daje nañ pour tudd yàlla tey jii ngir fa nga xam ne fa la lislaam yem àgg nañ fa ci bésu tey bii teg ci nag li ànd ak tudd yàlla yépp ci zikrullah yonentu nee na man qaala laa ilaha illa allah daxala aljannata yonentu nee na man qaala laa ilaha illa allah wajida min allahi tabaraka wa taala xifzan fi yowmihi wa leylihi man qaala laa ilaha illa allah shahidat lahu almalaikatu bi anna hada alabda shahida bi tawxid alima tawxid allahi wa waxdahu fi kulli hadihi al barakat yoo xam ne mi ngi ci biir laa ilaha illa allah tey yàlla may nañu ko ndax daje nañ pour wax laa ilaha illallah wax nañ laa ilaha illallah yonent ne wax ko dugg aljanna wax ko yàlla baal la say bàkkaat wax ko yàlla boole la ak ay malaaka yoo xam ne dañ lay sàmm wax ko yàlla yëkkati la ba fi nga bëgg a àgg ci àddina wax ko yàlla ubbi la say wërsëg waxal laa ilaha illallah yàlla baal la waxal laa ilaha illallah yàlla dugal la aljanna ba wax ci yoo xam ne man qaala laa ilaha illallah daxala al jannata walaw sariqa walaw zina di la sàcc na di la njaaloo na waaye boo waxee laa ilaha illallah te gëm ko ci xolam ndax bu ko xamee xasee gëm ci xolam rek dootu sàcc dootu njaaloo ah du sàcc du njaaloo moo tax mu ne man qaala laa ilaha illallah muminan musaddiqan daxala al jannata wa in sariqa wa in zina li anna ida saddaqta wa amanta xaqiqa lan lan tufakkira fi hadihi al umur bon nag si ngoon gu tedd la ngoonu tudd yàlla tudd nañ yàlla te benn laa ilaha illallah rek yonent benn waaye ñëw na ci boroom xam-xam ne ko tudd yi ñuy tudd yëpp di ko ñaane yàlla te boo ci tudd boo ci jàpp rek yàlla dina la àggale ci dara ndax tur tur yooyu yëpp am na benn tur bu ko dajale mu ne ko waaw mu ne ko ban la mu ne ko laa ilaha illallah boo waxee laa ilaha illallah turu yàlla yëpp nga leen boo ñaanee yàlla ci turu laa ilaha illallah nga xam ne lépp loo xam ne nit ñaanee na ko yàlla yàlla dajaleel na ko yow ci sa ñaan googu may la ko <laughs> tax gis ëppante wërsëg waaye du ëppante wërsëg ëppante doxalin la doxalin parce que yow yaa ngi am yaa waxaabu yaa waxaabu yaa waxaabu yaa waxaabu yaa waxaabu waaw bu dina ñëw waaye kenn lay doon waaye laa ilaaha illallah yëpp nga ti saw ti siin yëpp nga boole ñu ñëwandoo daa fekk daf laa dàq liggéey waaye daf laa ëpp wërsëg daf laa dàq liggéey yëpp ubbeeku bon tur yàlla yi ñuy oo yëpp di ko ñaanee tey dajale nañ tur bi nga xam ne moo gën a màgg ci tur yi mooy laa ilaaha illallah te yonent dugal na la ci aljanna faral na ci say bàkkaat may na lay ay malaaka ñu di la wër guddi ak bëccëg yëpp di la di garde ci seytaane ku wax laa ilaha illallah dawloo nga seytaane ay téeméeri téeméeri kilomètre pour mu sori la boo ko waxee rek seytaane daw na ñu meetu laa jega bon daje nañ ci bés bi wax nañ ci laa ilaha illallah loo xam ne lu bëri la yal nañu yàlla may yal nañu yàlla may loolu mu dénk ci saatul fa ci laa ilaha illallah yal nañu ko yàlla may yàlla may nañu ci bés bi daje wax nañ allahuma salli ala sayyidina muhammad julli nañ ci yonant ndax boo xee xase wax la ilaha illallah dara sësatu fa lu dul muhammad rasulullah muhammad moomu nag yàlla daf ñoo may ci moom loo xam ne moom lañuy jëriñoo ci jëm ci yàlla mooy lan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ñu may ci loolu ci yoonant gis nga ni yàlla takkalee digganteema ak yonent yàlla muhammad ne su ngeen yéen julli ñi julli leen ci yonent bi ndax noonu ko yàlla jege jegele ngeen mën a am loolu ci moom yéen tamit mën a takkook yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ba nga xam ne ëllëg yéenay nekk ay rufaqaum fil jannati ku la gën a mën a tudd yonent yàlla muhammad ku la gën a mën a julli ci yonant moo la ëpp daraja ku la ëpp yoonant moo la ëpp leer ku la ëpp julli ci yonant moo la ëpp kawe moo la ëpp xam-xam moo la ëpp lu nekk parce que laa ilaha illallah jeex na mooy nihaaya waaye gannaaw nihaaya bi nag jeex na fi nekk nag da ngay ñëw ci àddina pour dund ci biir àddina booy dund ci biir àddina nag yonent mooy bunt bi nga xam ne moo lay àggale ci àjjana ba nag bala ngaa dugg ci yoonant boobu na nga fëgg sa bunt na nga fëgg buntam nooy fëggee buntam mooy allahuma salli ala sayyidina muhammad boo ko defee rek yi yëpp yàlla mën na la ko ubbilal yombal la ko te tey yàlla may nañu def nañ ci salaatu ala nabi loo xam ne ah, yàlla yàlla nañu yàlla may mbóot yim ci denc ne dina ko defal koo xam ne mi ngi julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa nañ ci bésu tey bi ngir fàttaliku wajhun min wujuhi taarix ñoo xam ne soppali nañ taarix am na ay góor ñoo xam ne dañuy romb rek dem ci àddina bon góor ñooñu voilà noonu lañ noonu lañ ko bëggee noonu lañ ko tànn mais am na góor ñoo xam ne duñ dem mukk te bàyyiwuñ fi loo xam ne dafay jëriñ doomu aadama parce que loolu leen yàlla bindee pour ñu ñëw nekk njëriñ pour doomu aadama yonent yi ñoo ci njëkk gannaaw gi awliyaullahi tabaraka wa taala ñoo ci topp awliyaullahi tabaraka wa ay borom daraja lañ ëppante ay daraja comme ni yonent yi ëppantee daraja tilka rusulu faddalna baadahum ala baadin wa tilka al awliyaawu aydan faddalna baadahum ala baadin parce que du awliyaawu yi fi jaar yëpp ñoo fi bàyyi ci taarix loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi ci langaamu comme niñ langaamoo ci li fi Cheikh ma Tidiane bàyyi tariqa Tidiane ñi ci langaamu ci àddina bi wala yu bëri jiitu nañ Cheikh ma Tidiane mais bàyyi wuñ fi luñ ci langaamoo comme noonu boo demee itam alfayda tijaniya li ci nit ñi langaamoo ci àddina bi yëpp boo demee doo fekk aw yeneen awliyaaw yi bàyyee nañ fi loo xam ne nit ñi dinañ ci langaamoo nga amoo te gis ci seen njëriñ mën ngaa la nga amoo ci dara te njëriñ nekku ci mais mën ngaa la nga ci loo xam ne boo ci langaamoo nag da koy danga koy bëgg bëgg bëgg ba bëgg ko toxal ci sa doom bëgg sa doom toxal ko ci doomam ndax lu kawe la lu yëkkatiku la luy dolli doomu adama ma xamala fii ci àddina luy musal doomu adama ëllëg ci àllaaxira moo nekk noonu moo tax dono yooyu du góor gu nekk ku fi mën a bàyyi góor ñi yàlla tànn pour loolu rek ñoo ko fi mën a bàyyi faddal naa baadahum ala baadin loolu dafa am su ko defee nag ci fàttaliku Cheikh ma danañu fàttaliku góor gu nga xam ne lépp lu àddina laaj pour kawe jaar na ca jàngal na ko doomu aadama te àddina mun takkawee fenn fudul ci buntu yàlla fudul ci gëm yàlla maa ngi gis léegi benn waaye ngi taxaw di sànni xaalisam rek waxuma sànni waaye mi ngi maye xaalisam kooku foofu mu toll noonu di def fan la ah, foofu mu toll di def bay gisatul àddina gisatul dara gisatul xaalis gisatul li nit ñi di reyantee mu ah, ah, yépp jeexal na ko lan la loolu boo àggut ci daraja ci nekkal yàlla ci xam yàlla loolu ñemewoo ko waaye boo xamee ne lu nekk ci àddina bi neen la yàlla rek mooy dëgg nga dem ba àgg ci yàlla bëggatoo loo xam ne daf lay tinoon moo tax Seydina Omar Seydina Moussa yonent yàlla Moussa bim jógee ca muxaatabatullahi tabaraka wa taala bi mu wàcc ci nit ñi mu ne nit ñi bu leen wax parce que seen wax yi daf may wëcculoo ndax du wax ah bu ma déggee waxi ñi damay wëccu ndax du wax ndax waxi yàlla ji mu dégg ku jógee ci waxi yàlla looy déggee waxi waaye saay na nga def lu muy wax waxu dara su ko defee nag boo ah àggee ci darajaay yaa ngi nekkal yaa nekkal yàlla xam ki nga nekkal amul dara du wóoloo ci sa bopp lu yem ni kooku nga nekkal nit amul lu mu gën a wóolu lu yem ni yàlla ci moom waaw yàlla yàlla la gën a wóolu ci boppam tey tey loolu mooy dëgg ndax yàlla moo ko gën a teew ci boppam yàlla moo gën a teew nit ki ci boppam ndax al awalu al axiru al zahiru al batinu wa huwa bi kulli shay'in alim foo jëmati jeex na c'est soo xasee àgg foofa nag da dangay ngay jeex ci yàlla boo jeexee ci yàlla yàlla dal di soppeeku ci yow comme ni waa ji doon def xaalisam bi léegi jeex na ci yàlla fam na yàlla fa nekk rek di def yàlla fa nekk di def ci mbaaxu yàlla la ci yàlla ngi génne mbaaxam yàlla ngi génne na àddina ji yéen aj seen bakkan yi foog na dara la àddina bi taxu ko foor noonu li fort dëgg-dëgg mooy man yàlla parce que maa lay amal njëriñ fii maa lay amal njëriñ ëllëg maa lay yëkkati sa daraja fii maa lay yëkkati sa daraja fa ëllëg te darajaay ëllëg nee na wala wala akbaru wa wa um, wala laaxiratu akbaru darajaatan wa akbaru tafdila moo gën a kawe moo gën a màgg yal nañu yàlla maye foofa daraja ëllëg yi tamit àllaaxira ci daraja nga xam ne moo gën a kawe loolu yëpp jotaay yi yëpp ñuy def defuñ ko rek lu mooy gëstu gëstu bunti mbaax fu ñu koy amee dañoo bugg a baax dañoo bëgg a nekk euh, nation bu civilisée dañoo bëgg a nekk nit ñu xam dañoo bugg a nekk nit ñu am yar dañoo bugg a nekk nit ñu yëkkatiku te loolu yëpp mënuñ koo am dudul al awdatu ila allahi tabaraka wa taala inna al izzata lillahi wa li rasulihi wa lil muminin yàlla yooyu ñu bëgg yëpp di ko gëstu yàlla moo ko am te yàlla nee na defeewuma ko dara ñëwal yow sama jaam tàllal sama loxo tàllal sa loxo ma may la ko yow ñëwal utsi ci man ma may la ko donc bon dama dama suñ jotaay bi liñ ci bëgg am yëpp yàlla nañu ko yàlla may dañ cee bugg a am dañ cee bugg a am nit ku kawe dañ cee bugg a am nit ku baax dañ cee bugg a am nit bu civilisé dañ cee bugg a am nit bu am yar nit bu am teggin nit bu am comportement nit bu am xam li muy wut ñu mu koy wutee parce que am na façon ut boo xam ne yàqal sa bopp la waaye du ut ah waaye am na façon ut boo xam ne boo ci jaaree li ngay ut yaa ngi koy ut donc jotaayu tàkkusaanu dellu ci école Cheikh Ibrahima pour jànga jàngaat suñ bopp ñun ñooy ñaan jàngaat suñ bopp suñ njëriñ ci àddina mooy lan suñ njëriñ ci àddina mooy dëgg-dëgg nañ jéem a def nit muy nit nit muy nit parce que nit ci la yàlla deñ ci mbooleem ay mbóotam bu nit ki baaxalee boppam mbóot yooyu yàlla denc ci moom daf koy génnee muy njëriñ ñeel mboroomi nitam waaye bu nit yàqoo mbóot yooyu dafa yàq bu génnee dafa yàq doomu aadama yàq moroomi nitam loolu loolu moo fi nekk waaye su fekkee nag am nga ay leçon am nga ay dars ci àddina am nga ay nit ñoo xam ne jox nañ la ay misaal yoo xam ne royukaay la pour nga àgg ci nit kooku yàlla di wax ci alxuraan ba di ko tiitaroo yàlla di ko di ko di ko di ko fonk ba di ko tiitaro yaayul mu zëmil yaayul mu dasiru waa na ilaa rabbika rujaa eh, yooyu yëpp yàlla def ko wax pour tiitaroo ko doomu aadama yëkkati ko màggal ko loolu yëpp nit kooku dëgg-dëgg moo fi indi woon Cheikh ma pour mu préparer ko pour mu amal ko te boo demee da nga gis ne Cheikh ma amoon nañ ci lu bëree bëri jotaay bi Sénégal la xewee waaye yaa ngi gis benn waay buur yi Gaana mu ngi ñëw ak seen yére buur yi ñëw toog ak ñun baadoolo yi te mi ngi nii toog toog ñun te buur la te buur ni muy kawee waaye gis nga ko tey mi ngi ñëw nekk fii parce que nit nit rek la ah, boo ko tegee ci kaw nit mu xam yàlla dana xam ne ne lii dara la waaye lële itam dara la te lële moo gën a kawe lële moo gën a kawe lële moo gën a màgg nekkal yàlla moo gën a kawe nekkal yàlla moo gën a màgg nekkal yàlla fa la mbaax nekk nekkal yàlla fa la fit nekk parce que ah, voilà buur baa ngi nii nekkal yàlla moo nekkal yàlla fa la fa la lu nekk nekk fa la yëkkati ku nekk waaye su fekkee am nga yaakaar ne am nga feneen foo mun a amee loolu yëpp te yàlla du ci dugg vraiment da ngay sa bopp te te yàlla dina la ko jox nag waaye daf la koy jox nga dem ba ci digg rek mu yàqu ah comme Union soviétique dem na ba ci digg mu yàqule jeex na c'est fini ah? ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne dañuy tabax seeni programme ne dafay jàll nii waaye du jàll parce que wala gis ngeen li xew fan yi ci états ci ngelaw ngelaw ak taw lim yàqal États-Unis ay milliards et milliards lim yàqal Italie lim yàqal Europe yëpp lim yàqal sax ba ba duwal Afrique yenn ci pays Afrique yi te nit mënu ci rek mooy li fu mu bàyyeekoo xamuñ ci dara mënuñ ci dara technologie bu rëy boobu yëpp munu dara ci leelu xew ci seen réew yi alag leen yàqal leen loo xam ne yàqal leen loo xam ne seen guerre yi sax mënu leen koo yàqal bon yàlla rek moo am kattan boo xam ne ci la doomu aadama di jëriñoo pour am një pour jëriñ ci àddina bi ëllëg ci àllaxira ndax am yii xew ci réewu Europe yi mi ngi xew États-Unis mi ngi xew Arabie Saoudite tam xew xew na fa bu yàggul waaye boo demee nam tiitalee ñële tiitalewu ko tiitalewu ko jullit ñi parce que jullit xam na ndogalu yàlla nangu na ko ah, bu bu bu ndogalu yàlla ñëwee yàlla wax na ko ne waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaayika alayhim salawaatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaayika humul muhtadun noonu la loolu la jullit am te amul lu ko gën a dëgër boo amul yàlla nag baat yooyu doo ko mën a wax xamoo ko bu ko defee yow yuuxu rek ak jooy ak euh, caalit rek nga am ak caalit ak yuuxu comme lii américains yi fi nekk nii ak Europe yi seen suuf ñëw ngelaw lu ñëw ndox moomu di daane seen kër yi seen néeg di leen rey te vraiment xamuñ lii lan la xamuñ ko fu mu bàyyee ko doole ju am ni foogoon na ñun rek ñoo ko am ndeke am na keneen ku ko am te bu ñëwee bu koy indi duñ ko gis pour fayee ah ko koy daf koy def ba ñax ko rek mu dem voilà donc bon dama dama amut kàttan yàlla moo am kattan dama dama amut doole yàlla moo am doole bañ sukkandiku ci yàlla ci suñuy soxla ak suñuy ñaan nañ wóolu yàlla nañ gëm yàlla waaye itam nañ wóolu yàlla nit mën naa gëm yàlla te du wóolu yàlla waaye nag gëm yàlla wóolu yàlla ci nga xamee ne yaa ngi làqu foo xam ne mooy làquwaay bu dëgër yaa ngi làkk foo xam ne mooy dëgërluwaay Cheikh Ibrahima jàngaleem ci doomu adama mooy ne doomu aadama yëg fooraayam ci yàlla parce que yàlla moo wax ne xalaqtu bi yadayya mën naa ko bind ci sama loxo yàlla lu mu bind ak loolu lu kawe la loolu lu lu màgg waaye su fekkee sànniwul boppam bu sànnee boppam nag moo sànnee boppam yal nañu yàlla musal ci sànni suñu bopp yàlla buy sànni si bopp yàlla nañu nekkal yàlla ci bëgg-bëggam ci namb-nambam yàlla nañu yàlla may yàlla comme ni ko Cheikh Ahmed daan ñaane yàlla nañu yàlla méngoo benn doomu aadama wootewul ne man damaa mat même yonente yàlla Muhammad wootewul ne dafa mat ah gannaaw moom wootewul ne dafa mat doomu buy wootee mat waaye xam na ne moom moom doomu aadama ji la nekk ci diggante asamaan ak suuf ak ak xew-xew yi xew yëpp ngay jànkuwanteeg moom ah mu lay mu lay yëgalaka parce que voilà suuf si mbindeef yi du nekk ci biir ay nit ay malakaan ci ay seytaan ci ay ñumaan ci ay kondrowan ci ay ay nag ay bëy ay lu lu ay nekk ci te loolu yëpp yàlla daf la bind yow doomu aadama ji pour ngay communiquer ak ñoom ah? te yaa ngi communiqué te yaa ngi communiqué ak ñoom te yaa ngi communiqué ak ñoom xam nga ndax yaa ngi koy def wala defoo ko loolu beneen affaire la loolu xam-xam waaye boo ko xamee di nga xam ne doomu aadama responsabilité bi ko yàlla teg ci àddina tegu ko keneen parce que moo gën a kawe ci àddina parce que gis nga yooyu ngay jokkalante yëpp te gisoo leen te ñu ngi jokkalante ak yow yooyu tamit yaa ngi jokkalante ak ñoom ñooñu ñëpp nanga xam ne euh, ni ngay jokkalan ni ñuy jokkalanteeg yow noonu la ñuy joxantee ak yow itam parce que di ngeen di gis ñu naan kii dafa am ay dafa amee jinne ah, kii dafa am ay jinne dafa a wax ak jinne yi dafay def nga nangam ak nangam yooyu yëpp di ngeen koy dégg di koy gis di ngeen di gis nit ñoo xam ne kii dafa am secret ci ci njaa àll yi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg yooyu ba ba dafay mën a wax ak ñoom dafay mën a déggante yooyu yëpp ñu ngi koy wax ci kaw suuf si te yooyu yëpp communication bi nga xam ne yàlla moo ko def digganteem ak mbindeef yëpp mbindeef yëpp yàllaa ngi def communication seen diggante ñun nit ñi ak malaaka yi ñun nit ñi ak seytaane yi ñun nit ñi ak mala yi ak njaal yi yëpp ñu ngi communiquer ñu ngi jokkalante ñu ngi déggante ñu ngi jàngal ñu ngi jàng ñu ngi jàng ñu ngi jàng ñu ngi jàng ci ñoom ñu ngi leen di jàngal itam loolu yëpp dafa mi ngi ci biir àddina bi àddina bi boo demee itam dangay gis ne euh, suñ jotaay bi ay ay ay xeet yu waree fi daje tukulóor wolof bambara séeréer ñun ñëpp a fi daje ñun ñëpp li ñu dajale ñun ñëpp li ñu dajale yëgu yëgu yëgu intérieur la du yëgu biti parce que yëgu biti dafay gaaw a daanu waaye yëgu biir la ku nekk yaa ngi yëg loo xam ne bëgg nga cee àgg ñu lay won leen lii moo la ciy àggale lii moo la ciy àggale ah yàlla wax nañu ne bu ngeen bëggee agsi ci man tudd leen ma tudd leen ma yàlla moo ñu ko wax fazkuruni fazkuruni boo bu la waxee loolu tudd leen ma lan la la ci tegal mooy bu ngeen ma tuddee ma tudd leen tudd yàlla ci ñun mooy naka mooy di ñu yëkkati di ñu dolli xam-xam di ñu dolli yëg di ñu dolli zawq di ñu dolli mën-mën yëpp tudd yàlla ci ñun la waaye ñun nag suñ tuddam yëpp mooy laa ilaaha illallaah yaa wahaabu yaa turam yi ñu koy ñaanee rek yooyu dañ koy tuddee waaye tur bi nga xam ne nag moom bu ñu ko tuddee dafay feeñ ci ci ci ci ñun bu baax a baax feeñ ci suñu xam-xam feeñ ci suñu guu te feeñ ci suñu jëflante ak nit ñi yooyu yëpp fas kuróon yi askurkum moo ñu ko may yàlla mu kawe moomu di la invité yow doomu aadama la kaay tudduma ak kawewaayam ak màggaayam yow bu ndaw bii mu ne la kaay tudduma kooku daf laa bëggal teraanga dafa am teraanga yoo amut te yow ko bëgg a defar mu ne la kaay tudduma ba ma tuddee rek askurkum askuruni askurkum li ah loolu la yàlla santaane te loolu mi aj nag teraanga yoo xam ne ñun doomu aadama yi ñun da ko yàlla may teraanga yooyu nga xam ne moom la yàlla doom yàlla may doomu adama mu bari ba bugg a dee Cheikh Ibrahima dundam yëpp fàttali nit ñi ne leen teraanga boobu yéen a ko moom bu leen ko bàyyee ku dul yéen mu jël ko parce que bu ngeen ko bàyyee keneen ku dul yéen ñu jël ko seytaane yi jël ko malaaka yi jël ko li ci baax di dolli di dolli mbindeef yàlla malaaka yi jël ko li ci bon di yàq mbindeef yàlla seytaane yi jël ko dem yàqee ko ñeneen te fekk yow yaa ko moom boo ko jëloon mën naa bañ a demee noonu te noo koy jëlee yàlla bàyyiwu la ngay làmbatu ju ne ma koy jëlee daf laa wax daf laa wax ne topp leen ma man yàlla ma teg leen ci yoon woo xam ne moom ngeen di bëgg pour seen bopp moo tax topp boobu ci la nekk ñun ñëpp bés bu nekk ihdina siraata al mustaqim dina sirata al mustaqim yàlla ñu yàlla teg ci yoon woowu nga xam ne buñ ci tegewoo buñ ci tegewoo dinañ gis ne dëgg-dëgg nekkal yàlla moo gën nekkal leneen lu dul moom parce que nekkal lu dul moom perte la nekkal lu dul moom gaña la gaña la ndax gaña nga am nga yàlla yàlla am na la parce que yàlla ni nga ko bëgg amee yàlla itam noonu la bëgg amee yàlla dafa bëggu jaamam yi dafa bëgg dafa bëgg daf ko bëgg teral parce que teral na ko ba pare ah, waaye daf ko bëgg yokk waxtu wu nekk rek muy dund ci teranga jooju ba muy dem aljanna ila daaril quds ba nga xam ne dafay mujj nee nañ ci borom xam-xam yi danañ mujj jàkkaarloog yàlla ah doomu dana mujj jàkkaarloog yàlla nii bët ak bët waaye ci ñu ne yonent fi loolu naka lay mën a demee yoonu si ne leen weer wu am 14 jours ndax weer dina nëbbatu kenn ñu ne ko déedéet mu ne noonu la yàlla di mel di may kenn ñëpp dañ koy gis ah, waaye nag jullit jullit ñi ñoo koy gis jullit ñi ñooy àgg foofu ñi gëm yàlla dee ci gëm yàlla ñooñu ñoom la yàlla dig waaye ñi dee ci weddi yàlla ak kéefër yàlla mu ne inna atadna lil kaafiriina sa'iiran wa na jeex na ñoom foofu rek lañ nekk Hmm? safara duñ gis malaaka yi duñ gis dara lu leen di mbugal rek lañuy gis ah jullit ñi nag ñu ngay gisee malaaka yi ñu ngay waxtaan ak moom malaaka yaa ngi leen di félicité marhaban bikum yooyu yëpp ñu ngi koy am ci bés boobu nga xam ne mooy bés bi gën a raglu ci àddina bés yooyu pour dama dama xam ko xam palaasam moo taxoon Cheikh ma mu dund ak ñun lu mat soixante-dix ans soixante-quinze ans jàngaleem yëpp kayfa kayfa yaudul abdu ila rabbihi kayfa yaudul muminu ila rabbihi kayfa yasiqul muminu bi rabbihi kayfa yataakkadul muminu bi anna allaha tabaraka wa taala yuwafiru lahu alinayata walxifda walsawna loolu yëpp boo demee lu nit war a am la lu nit war a gëm la lu nit war a xam la yàlla nañu ko yàlla xamal te gëmlooñu ko jotaayu ngoon bi tey ci jotaay yi nga xam ne euh, malaka yi dañ ne yàlla atajalu fiha man yus man yus man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa ah loolu loolu ñooñu nga nar bind yàlla na leen inni aalamu maa laa taalamoon xam naa lu ngeen xamut ñooñu ngeen di wax am nañ waaye man xam naa leen lu ngeen xamut li ngeen xamut mooy ne def naa ci ñoom ñu ma xam ñu ma xam man yàlla def naa ko ci doomu aadama yi def naa ci doomu yi ñu ma bëgg def naa ko ci doomu yi ba nga xam ne jotaay yu mel nii bu dajee nga xam ne nit ñi dañee dara dajeeloo leen lu dul tudd yàlla ak ngir bëgg a gën a jege yàlla ak ngir bëgg a xam yàlla yàlla ne malaaka yi dem leen xool ñoo ñu ngeen doon wax ndax bokk nañ ci ñu ngeen doon wax ak déet ah wax na leen inni aalamu maa laa taalamuun mooy ñu nga xam ne ñu ngay daje di gëstu lu baax di di sàkku lu baax di gën a kawe jëm ci yàlla lu baax loolu dem leen ngeen seet leen malaaka yi ko defee ñoom tamit ñu ne moment boobu dañuy xaw rus parce que li ñu foogoon ne nee la doomu aadama mais mel meluñ ko yàlla ñu yàlla ñu ci yàlla defal si jotaay bi muy si jotaay bi nga xam ne yàlla daf koy tiitaroo malaaka yi ne leen li ngeen waxoon amut yàlla ñu yàlla ñu ko yàlla defal jotaay hmm? jël jotaay yi nga xam ne ñu ngi koy am te yëpp jotaayu gëstu la jotaayu bugg a xam la jotaayu bugg a dooleeku ci yàlla jotaayu bëgg a dëgër la yooyu yëpp jotaayu barke la te nit mu nu ko am yàlla moo koy xiir yàlla moo koy xiir jaamam yàlla moo koy may jaamam yàlla moo koy xéewalal jaamam yal ñu ko yàlla defal defal nañu ko ndax boole nañoo ak Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu boole nañoo ak moom ci zahir boole nañoo ak moom ci baatin mbooloo boobu yàlla na gën a dëgër bañ te seeg moom aljanna ah bañ te moom aljanna incha allahu tabaraka wa taala euh, ñu daje fii ci mbooloo mi suñ mbokki jullit yu bari ñu ci fitna Soudan ñu ngi ci fitna euh, hmm? suñu suñ ah gis ngeen Soudan ñu ngi ci fitna Palestine Gaza mi ngi ci fitna Liban mi ngi ci fitna mbooleem aalamul islami taqriban daayiman yaishuuna euh, euh, ibtilaan min allahi tabaraka wa taala nasalullah tabaraka wa taala an yarfa anhum hada al libs an yarfa anhum hada al adab wa an yakshifa anhum hada alladi imtaxanahum bihi wa nauda dawla muminina aqwiyaa laa naqtulu baaduna baadan wala nastajibu li aadaina fi ifshaai alfitnati fi ma baynana nahnu naqtulu baaduna baadan wa hum yuwaffiruuna anfusahum naqtulu abnaana wa naqtulu banaatina wa naqtulu abaana wa axwaalana wa hum يوفرون أنفسهم آبائهم وأجدادهم وأمهاتهم وأولادهم ف ف فنحتاج إلى شيء من اليقظة وإلى شيء من الوعي من ما ماذا تكون نتيجة قتل بعضنا بعضا؟ ما نتيجة ذلك؟ ها؟ بلا نتيجة إلا خسارة لنا ونحن لا نريد هذا الخسارة ينتشر في الإسلام وفي المسلمين و نشكر الحضور ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الأمة الإسلامية أمراءهم وملوكهم ورؤساءهم ومحمد سنكهم ومحمد سيسهم محمد سيسهم كل ذلك محمد سادسهم kulluhum fi sawnillahi wa xifdihi wa barakatihi incha allah allah fi nekkoon ci ci bëri am na ñu allah yal nañu yàlla yëkkatil yooyu yëpp xayu géej géeg ah xayu géej géeg dem ci géej gi yëpp yal nañu ko yàlla teggil yal nañu yàlla may Sénégal loo xam ne dinañ ko mun a am pour Sénégal doomi Sénégal des fi ci biir réew di liggéey ndax sax ñu mën a développer suñu réew fekk suñu doom yi taxawuñ liggéey seen réew développement du am développement du am nañu ko yal nañu ci yàlla musal suñ doom yi gàddaay rek di dem suñ doole yi di gàddaay rek di dem suñ borom xam-xam yi di gàddaay rek di dem yal nañu yàlla teggi loolu may ñu lu ñu lu leen fi téye shukran jazakumullahu xeyran